asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ki ñu suivre ci Leewtoo TV Lutte TV ak wasaare lamb nuyu nañ leen ziar leen fii ñu toog nag biir Lutte TV point com la ñu toog ki ñu fi indi xale la di jamaïcain borom jam production ginnaaw ba mu ñu yóbboo Gàmbi nag yéen gis la fa xewoon lépp waaye nag dali lu gën a jege gën a yey moo tax nag mu ñëw fii senegal fa su tamit tëgg làmb ju mag a mag soo ngeen gisee Sawru Fall xam ngeen ne manager bu mag a mag la moo yor mbër bu ñuy wax Bébé suñu góos moo ra fi nekk nekk parcelle. écrit bu ñuy wax parcelle mbooloo bu ñu ko waxee tamit franc tax kon nag combat bébé Saloum ak franc moo taxaw ki ko taxawal mooy jam production ñoom ñaari ngi nii séq ma nag olof nee na ah lay jeex na fi mu nekk nii xaw ma ci moor laa njëkk xaw ma ci sawru naa njëkk ci sawru muy mag sawru maa ngi lay ziar mbaam nga jàmm. maa ngi lay nuyu Babacar. di nuyu si waa Leewtoo TV yëpp. di nuyu aussi presse bi fi toog yëpp. Mhm. rawatinaa sama jigéen day Kumba Fall. Mhm. di nuyu wulli sama rak. nuyu ñëw béjjën promoteur bi xam naa trop sax di leen jaaxal bu nga xëy mooy jamaykay <coughs> man noonu laa koy wooye waaw di aussi Mor moom vraiment di sama xarit euh, bu yàgg vraiment ci làmb euh, di ko félicité moom bu baax a baax parce que defe naa lii ñuy def fii li ñuy bëgg a def fii tey bu ci bu fekkee yàlla dem nañ bay def lii tey jàpp naa ne même ñëw béjjën war nañ ko gërëm waaye war na gërëm moor bu baax a baax a baax a baax waaw ndax itam xaritam la te nee na naa ko jàppale te it macha allah yàlla waaw Mor moom dëgg yàlla bëgguma man dara am ci man di jafe ci man mu jaar ci moom da jafe ci man kooku moom ñaan ma ko yàlla muy am di nuyu sama mbër baax baax di nuyu aussi ko ñaanal fa mu nekk yàlla defal ko yan xaw ma mais tamit du ma mën a xam bu ma toogee fii ñu ne Lutte TV fii la Babacar Doore ci loxooy Lamine ak Beuz Lamine maa ngi koy nuyu bu baax a baax di bi yëpp mais Mor maa lay nuyu di la ziar Mor borom parcelle mbooloo doomu ndeyu Franc waaw Babacar ñu lay nuyu waaw di nuyu waa Lit TV ak Leewtoo TV ak waa presse bi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu waaw di rafetlu bu baax lii di nuyu tamit ah, suñu grand Sëwru Fall waaw suñ gisee jotaay bi nii lenn moo ko waral muy benn ah, contrat bi ñu war a signé entre Bébé Saloum ak ah, Franc waaw nag ménagère Franc dafa voyagé muy A Cissé moo ma fi yebal pour mu représenter ko waaw représenté waala fi franc waaw ñu ngi rafetlu affaire yi waaw di taaxilu nag yenn question yi daal. question bi benn la franc ba mu duggee ci lutte simple ah, ah, lutte avec franc ba tey gisaguñ mu am defet macha allah tey ngeen jël bébé Saloum te bébé saalum ci ni ñu xam si wala li ñu xam si làmb du mbër mu ndaw mbër mu mag la ndax yaakaar naa am na fu mu jot a jaar ak waa parcelle googu lan moo leen motivé ba ngeen jël avance su bébé avance su bébé Saloum. waaw Babacar waaw dañuy remercier waat bébé ndax franc bëgg a bëreeg moom bëri na. tamit ñi ñeme bëreek moom bëriwul loolu mooy problème bi. léegi nag bébé su amee sens su may Franchance dañ koy félicité bu baax si courage bi mu am pour jël ah, champion bi nga xam ne mu ngi si yoon muy Franc waaw dañ koy remercier si loolu. d' abord suñu plan tamit ah, daanaka mën nañ ne premier combat ba huitième combat daanaka lépp ñun ñoo ko waxaale ñoo sottal lépp waa mu ngi jublu nag si neuvième kombam waaw dañ ko si ñaanal rek parce que sànq nag déggante neen mu ngi. Euh, moom fu mu nekk sax. actuellement mu ngi New York sànq déggante nañ ñu ngi si doon waxtaan mu ngi si liggéey nag pour waajal saison yi pas pour waajal bébé Saloum kese. Ah, mais avance su bébé Saloum nag nga lekk kon xanaa da nga xeeb bébé yow. non avance su bébé saalum lañ lekk ndax Franc moom wax dëgg yàlla nekkul mbër moo xam ne day xeeb athlète. waaw ndax ñun duñu duñu genre yu nit yooyu quoi. Hmm. nin koy yebe mooy combat bu mu jël da koy respecté dem si au fonds ñu waajal ko nun ko war a waajalee yàlla suturaal ko si ko si ndam. su ma la laajoon Franc ak Bébé Saloum kopp doole loo may wax. waaw côté doole actuellement mënoo giseegum ndax Bébé saalum dama dégg discours am te Bébé tamit ku ko xam-xam ne champion la xam ne ndaanaan la xam bërekat la ndax gis nañ ko mu daan ay champion yu mag si làmb. te tamit dernière sortem gis nañ état de forme bi mu indi mook Jarli mooy wane ne tamit nekkul adversaire boo xam ne Franc da koy xeeb wala dara parce que tamit lu mën a wax lu nekk Bébé Saloum moo devancé Franc si làmb Bébé champion yu bëgg bëreeg moom si làmb bëri na kon nag ñun suñu amee sens su bëreeg moom waaw ah, dañuy jël atu yëpp def ko suñ côté. Sawru Mor li mu wax leer na nëbbuut làqul da ngeen di taxaw moom la ngeen daan def parcelle moom dakk na la wax as moo taxul fii sax as moom yab naa ko yabaat goo xam ne. ndaw lu ne nag ma maanaam cërub ko ko yónni lay yor. a waxoon ma lu mel noonu sax. laa jëm foofu laa jëm. ko yóbbante. waaye bu as toogoon hmm. moom la tax mu yóbbante xam na ko parce que as am loxo yi ñi mu ma xam na loolu xam na ni moor. moor euh, hmm. euh, xam na sama nit la. Hmm. Euh, mën naa am peut-être tontu bi ma war a tontu as. waaw mais waaw xaaral ma ñëw rek Babacar li ma la leer na dama ne la man man xam lu ma bëgg nga wax man xam fan laa bëgg ñu wax lii lay waa parcelle wax maanaam sa mbër dafa génn def garga dara rakkam Franc ñëw jël mu ne moom du yem ci Franc danga koy tëcc jàll ci Modou Lo te waa parcelle ne loolu du jàll yow loolu da nga koy dëggal li bébé wax euh, Babacar waaw ma wax la benn ci tey ci bébé Saloum ba ma dala ànd ak moom ak léegi am na combat xam man maa koy bañ hmm. man am na combat des fois même bu doon man ak man daf may wax ni ma père hmm. xale bu buñ fi wax bu bu ës. bu ñuy wax. boo jëlul avance am baaluma la ko. ah kon loolu tax ngeen jël Franc mi. dama ne non xam nga avant ñu jël Franc la ma wax wax loolu. Franc di dégg naa gars yi ni ku ës la. te wax boobu lu mu gëm la. Hmm. te ku xool fi mu jaar. Hmm. Euh, d'abord hmm. euh, dégg naa ci biir waxu Mor mu ne tam. Euh, kii xale la. waaye Bébé Saloum est-ce que juddu na. est-ce que buñ doon xool tey est-ce que duñ duñ. pour yow ko mag. ah pour est ce que Franc magul Bébé Saloum ji du de Babacar yow xam xam du mag mu ñu wax de xel xaw ma nag hmm. magu ko ci at pour yow ah Bébé hmm. xale la de xale la de mais mais su yow bu ma sa mbër bébé xam nga ko yaa ko yor depuis boobu ba tey mhm. ci côté bëre yaa ngi gis Franc muy bëre gis bébé muy bëre ñoom ñaar ba ma doon jàngatal seen bëre kan moo dàq bëre non xam nga xam nga euh, pour ñu di wa dàq bëre peut ñu ñun duñ ko mën a wax certes bu ñu doon dox tey favori dañ naan tey euh, franc. franc favori xam nga ñu koy wax. Ah. peut-être li mu li mu def ci ay côté mbapat bi la mën a wax. mais lit lii lit avec frappe la waaw ñëw rek. déjà def na ay preuve aussi ci lam xam nga daanoogul. waaw xam nga daanoogul. Mhm. waaye nag xaw ma date bi kañ lay doon waaye xam naa foofu lay déggee muñal. day daanu. waaw day daanu de. ah sawru sawru fi nga jàpp dëgër na de. ma lay wax rek. sawru émile franc man nag ki ma yor euh, Babacar ki ma yor yow tam. mbaa du ñeexum ñebe. ah, ah dugg na parcelle kay. waaw duggoon na fa de. am na nu mu fa duggee woon. lan la fa defoon mën nga ma koo fàttali. ah Mor waxu la ko léegi. waxaat ma ko. déet dugg na parcelle. def fa la. dafa dafa dafa jël boo xam ba léegi ñu ñu koy même moor mi ba léegi sax mi ngi koy jooy. ñoom ñëpp a jooy ba léegi de. te olof na nañ jeexaat foofu rek dala fa sab loxo. jël jël jël jël jël ba da ah. waaw ah, kii Lamine nee na 20 juin 2009. xam nga stade Iba Mar Diop. nga moom la yow mii sax xam nga xam nga lamb ñu doon demoon. Ah, ah seetaat naa ko maa ngoon ci biir stade ba toog. lamb ja doon demoon. waaw jël ba dërëyoon na. loolu benn communicateur wax naan mel mbàccum gerte. waaw lamb ja yëf la ca la ca. suñu mag Lamine Samba mooy wax loolu. Ah, ñu koy nuyu di ko ziar. waaw jeex na xam nga lamb ja dafa metti woon. na léegi bi waaw xanaa gërëm ñëpp gërëm aussi famille lamb yëpp mm-hmm. comme jàmm promoteur la aussi mm-hmm. dañuy jàllale sa micro yi teg loxol premier yëpp ci loxol Pape Abdou Fall muy seen président ñoom. sant ko gërëm ko félicité ko aussi. ndax itam tout le temps loolu lay wax ba naa loolu benn rajo. jiite ay rak ay xale. xëy la mën nga ne moyen bi nga am lañ am. nga jiite leen jiite bu rafet yombul. mu ànd ceeg dignité. heure bu ñu nee làmb dee def nangam rek Pape Abdou sol na dàllam. kenn feneen foo xam wax du yàlla xelu ñëpp dee dal. kon nag kooku ñun te ñun bu dee ñun ménager yi. à chaque fois dañu dañu war di toll di ñaanal promoteur yi jàmm. ndax dañu yor produit di ñaanat euh, mbër yi itam euh, promoteur euh, mbër mu ci promoteur ñëw ci yow mm-hmm. nga bañ caa laxas jaan ndax wax lu raisonnable waaw wax lu lu raisonnable nga mën a bëre mm-hmm. ñoom ñu gis seen bopp ñu mën a am dara nga am dara mm-hmm. loolu moo gën loolu daal lay yóbbante mbër yi di gërëm promoteur yi waaye man de weeri wulli yii liiru jaan am na problème daa mel ni de moom it moor looy tàggoo waaw baa Babacar waaw dañuy santaat yàlla rek di wax tamit euh, ñu ngi remercier bu baax promoteur bi taxawal affiche bi muy Jam Production waaw di wax na moom ndaw la na ko tamit monde làmb jàppale ménagère yi nañ ko jàppale waaw acteuru làmb yëpp daal ñu ngi woo seen soutien si Jam Production gars yi gën ko teg loxo sponsor yi tamit ñu ngi leen di woo si combat bi soo xoolee tamit euh, Jam gis nañ ko daaw mu tëgg diggante laay Pythagore ñàkk jën yi soo xoolee euh, affiche bi mu teg moo gën a mag combat boobu ça veut dire ne tamit moom soxla na ay soutien si côté sponsor coté yu bari da ko soxla jamono ji quoi waaw di remercier tamit as bi nga xam ne mooy ménager franc yebal ma fi tey ñu ngi koy remercier bu baax a baax di wax tamit waa parcelle nañ waajal combat bi seen combat dañu war a ñëw duy xam ne tamit la fay am ñoom ñoo ko fa war a def quoi jërëjëf ci yow Saloum ak ki nga xam ne moom mooy franc kee ngi nii toog mooy promoteur bi waaye léegi nag ki toog moom defe naa kenn du ko présenté sénégalais yi wala àddina bi man l'international laa ko tudde léegi wulli borom reefan borom bawal waaw ndeysaan borom dëkk bi maa ngi lay bëgg di la ziar say weer nag ñuul na de macha allah. Babacar yaa baax yaa gore. kenn du yow. maa ngi sant yàlla sunu borom bu baax di nuyu Seydina Mohamed di sant sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Mbacke. di sant waa Réfane sama véeri aussi. maa ngi sant sëñ Muntaxa. taxaa waaw Mbacke. moo la sëñ waaw moom ma ko jox. maa ngi sant sëñ Muntaxa ci magal gi la ma ko jox. maa ngi sant sëñ Muntaxa baax di sant sëñ Muntaxa mi nga xam ne sëñ Muntaxa mooy maamam muy sëñ Muntaxa mu sëñ Seex Gaynde Fatma di setu mun Muntaxa moom tam bëgg ma lool ci magal gi mu yóbbu ma résidence mu Rasuul jox ma néegam climatiseur may def lu ma neex li neexul. waaye neex ba dàq neex yow daal yaa wóor. xalifa général bëgg ma. waaw si tatam bëgg ma si Muntaxa. waaw li waaye li neexul. neex na waay. di sant Cheikh Ibrahima Keita loolu loolu d'Afrique. Ibrahima Keita ñu koy ko ziar. Cheikh Ibrahima loolu waa di Mandeng maa ngi koy ziar bu baax xalifa général suñu yàlla Keita di ma ñaanal di ma. boqal boqal. loolu wóor. Masila maa ngi lay sant. Masila. la Joob moo baax moo gore. kenn du moom bàyyi léegi léegi. Abdallah Maysa Waali Jon. Kara Mbooj. international Jamil Sam. kenn du wuli. man Lirou Diane loolu tax mu bëgg a daw. daa bëgg a daw ku la ne yow itam. mais pourquoi ñëwut. ah xam lu ko am PSF géej waaye daa xaw a sori. géej suba ba léegi ñu ngi koy woo jëlu téléphone. loolu day tappale da daal daa jàpp ne da laa ragal tappale lay def mag mu tappale baaxut xale sama war tappale ay mag wuli liiru day tappale jël avance lekk xaalis dem Gambie def signature noos noos di gërëm waa Gambie dina moori waaye xos xaj gatu sow ñëw le promoteur jeune promoteur ak a loq njuur nag kii Sénégal xamuñu ko maa ko xam maa ngi lay nuyu di la ziar borom Gambia borom Sénégal waaw ni nga ma xamee noonu laa la xamee maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñu fi teew yëpp di jégalu ci tardement bi avant tout maa ngi lay ziar yow waa Leewtoo di nuyu di tv point com fi ñu nekk nii nag ak caméramanam képp ku fi teew di nuyu waa Wasaare di nuyu di nuyu sa caméraman muy yàgg di nuyu Ndey Kumba borom Leewtoo point net maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax borom xalima gu ñëw gi ah <laughs> di nuyu Père Sowru Fall di nuyu Mor mi nga xam ne moo fi teewal Assis tey jotaay bii li ko waral mooy gis nga combat bi doon taxawal muy diggante Franc ak Bébé Saloum waroon ci tamit confirmé wulli ak Lirou Diane pour le 15 décembre Gambie loolu moo waral waraloon jotaay bi. man li ma lay laaj mooy da nga indi laay Pythagore ñàkk jëriñu daaw. lu jiit loolu sa bàyyi ma ñun gura soog nga njëkk yóbbu ca ndar saison ba jeex nga indi laay Pythagore ñaq Zal Bawol brise de mer numéro 2 mu mel ni jam dañu seetlu que ne at mu ñëw rek wala saison bu ubbi day gën a yokk niveau lan moo ne sa ginnaaw waaw Babacar li nga wax dafa am solo tey ñun dañu yàgg ci làmbu nekk ci di góor góorgóorlu ay jeunes lañ am nañ leneen luñ mënoon a def lu dul tëgg làmb kon bu ñu ñëwee ni tamit dañuy tëgg làmb dañ ci war di wane suñu bopp ndax tey wax dëgg yàlla boo ñëwee ci mbir jàpp sa bopp ne da nga war a des gannaaw rek tout le temps da ngay des gannaaw waaye tout le temps tamit boo bëggee wane ne man ci kanam laa bëgg a dem rek danga nga war di teg tànk looy jëmale ci kanam. bi ñu ñëwee suñu première journée Baye ma góor soog lañ indi daam seen visa wulli parisien ñu ne denn waaye ñu jël yóbbu ko ci raison kenn ñemewul def loolu ñu def ko. ñu ne fii lay yem benn na yoon la koy def dootu ko dolli ñu ñëwaat ne lay Pythagore ñax. brise de mer Sall Bawol wulli ak Big Pato mu nekk combat boo xam ne. saison bi ñu génn bokk na ci combat yi ëppoon coow ci Sénégal kon nag bu ñu jógee ci lu mel noonu ñu ne déet na waaye ñu dem song roi des arènes Gambie bi boole koog Baye Mandione comme ni ma koy waxee rek prouver yomb na waaye prouver si diggante ñaar réew moo jafe te yàlla dimbaleen ñu ay ndaw lañ amaguñu mënaguñu ñu ngi jéem waaye ñu ngi koy def ndax tey boo demee Gambie nga dem jël fa seen roi des arènes boole koog Baye Mandione mu nekk lamb ju rëy ñu ne déet na waaye ñu ne nag. ku fóotal mbëtt roccal bar Gambie def nañ fa affaire ba ñu koy coow Sénégal tamit dinañ indi combat boo xam ne nii wax dëgg yàlla képp koy amateur dina ci gis boppam ndax ñun si stade bi lañuy toog di seetaan làmb amateur yi boo fi indee combat bu ndaw bu ñu la ko rusee wax tamit wala combat bu neexul si kaw tribune bi la ñuy toog naan cam lii du làmb kon tamit lépp looy def nga def lu am solo moo ko gën liñ naan bëri le tuuti la te barke la moo ko gën Franc ak Bébé Saloum Franc nekk na mbër moo xam ne nii bi mu takkee ngeen ba tey déggagul mu ñëw Bébé Saloum nekk champion bu ma comme ni nga koy waxee daan ay champion ci làmb ji am fu mu bëgg a dem ne nag Franc mi comme dafa nekk ci yoon dama koy jël ne ko combat bi nekkoon komba boo xam ne ñi ci ñu ko bëggoon bëri na ñun tamit ñu fexee dugal suñu loxo jéem ba mu yàlla def mu taxaw di ci remercier nag yéen ndax wax dëgg yàlla tey danañu téye micro waaye su ma yeboo ne jam production ngeen bokk yow Lamine Seck bu Lutte TV xam nga ñoom gaa yëpp di ci jàpp jàpp ci liggéey bi bu am solo ndax bu ñu demee ba mën a réussir lii rek loolu daf ci bokk. waaw loolu daal Babacar moo waral ñu indi Franc ak Bébé Saloum. léegi may mujj ak yow indi nga Franc Bébé Saloum te yaa ko wax ko fóotoon ba trop ci bar kon mën nañoo xaar jamay keneen tam ci saison bi fii Sénégal mu indi yeneen combat et puis tam bëggoon nañoo xam datu combat bi kañ la fii. non Babacar ñun moom wax dëgg yàlla comme li may wax rek làmb moom wax dëgg ñu ngi ñaan nag yàlla di ñu kattanal ci gën a am tànki kanam lu ñu defoon daaw benn journée bu nekk boo xoolee suñu année yëpp journée bu nekk trois grands combats la ñuy jël boole ko benn bis te ki ci kàttanu yàlla Franc Bébé ngi ciy waaj waar loo xam ne buñ ci yeggee képp kuy amateur wala kuy dund lamb di nga xam ne lii lamb la te liggéey nañ ci lamb ji nag wax dëgg yàlla si tu jéegul ñu ngi commencé jënd licence yi bu ñu ubbee ba jël date rek dinañ xool date ñu koy def bëgg nañ daal au plus du génn mois de mars février waaw bëgg bëgg ndax nag ñu ngi jëm Gambie nii décembre bu ñu jógee Gambie décembre janvier bi ñu noppalu février ñu song nekk ci leneen waaw ndax lamb ji moom comme léegi lu ñu ko waxee promoteur bu dox si diggante Sénégal ak Gambie dañ dañ ko bëgg a nekk dàll yu Moussa Ngom suñu woon ñu sol ko bu ñu jógee Gambie ñëw Sénégal bu ñu paree dañuy delluwaat Gambie nañu gars yi xaar ñaari réew yëpp nañ xam ne ñun si ñoom lañ bokk ndax dëkk bu fa sa yaay juddoo fa nga bokk waaw di nuyu nag ñi nga xam ni tey Babacar feccum liir bu denexee nday jaa jàpp ca mbaggee wala bàyyi ni ñu koy waxee di nuyu sama papa père ba maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam di nuyu doomam Mansour ba njaboot gi yëpp ndax wax dëgg yàlla lépp lu jam production man rek moom la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk wér yokk ko kattan gën ko dooleel gën ko sàmm sàmm njabootam di nuyu njabootam gi yëpp ñoom may ñoom Codé ñoom benn bàyyiwuma kenn soxna Mama Dara maa ngi koy ziar bu baax di nuyu staff bi yëpp gars yi fay toog ñoom Gora ñoom Papa Guèye Sëñ Dame Souleymane bàyyiwuma kenn képp ku fay fréquenté rek maa ngi lay nuyu di la ziar Babacar di dem ba Gambie tamit dina nuyu staffu jam production foofu ñoom Gilsi di nuyu samay partenaire du man samay partenaire sama papa Ndiol Dieng borom BMG maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama mag sama xarit sama jigéen Xadijatu Saw borom White House ndax nee na ma loo jëlee Sénégal indi ko même boo ñëwul tey nga gis ko war a jugee Sénégal war a ñëw Gambie yebal ko mu ñëw ma jox ko mu tëdd gratuit jox ko mu lekk gratuit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax borom hôtel White House di ko jox wàccuwaayam di nuyu sama xarit comme ni nga ko waxee Abdou Dramé xaritu wulli xaritu ñëpp kenn du moom maa ngi koy jaar bu baax borom états di nuyu sama xarit laay bu def xam ne sama xarit la tey Babacar lépp lu may sol moom ma koy jox ku ma fa yebal mu solal la yebal la góoma fa nag daay bu def en direct Babacar a ngi nii jox ko muy sol ak caméraman ak ñuy liggéey maa ngi yàgg maa rek ndey Kumba Fall ma benn problème maa koy nuyu baax di nuyu waa Sandaga di wax ne képp kuy jaay yére Sandaga du sa morom di yu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Gambie mu des Xaadim Mbeng Xaadim Mbeng it ponkal la de ca Sandaga laay du moromam rak rakku laay sax rakku laay sax du moromu maa ngi koy nuyu. xaadim meng nuyu naa ko. xaadim daal benn ponkal laa ci xam benn ponk xaadim balla moom maa ngi koy jaar bu baax a baax muy borom man faw say électronique sama xarit sama grand maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel ci màggal gi ñu jógee di ñaan ci réew mi jàmm Babacar di ko ñaan ci bitim réew di la nuyu di nuyu gaa yëpp jaajëf. yaay tëj nag xam naa nag la nga Lamine lam ñu waxoon ca Kébémer daa woon yàlla. mais daa mel ni nag yàlla wuyu si na la de macha allah fi mu nekk laf cat. macha allah Babacar sant yàlla la. waaw macha allah macha allah. yàlla bu ku ko la. waaw ah. da ngay kabar naa yàlla alhamdulilah sant naa yàlla. gërëm naa yàlla. santaat naa ko bu baax a baax. Babacar vidéo bi ñoo ko defoon. yàlla suñu borom dikk na ak lalamin yéen aussi seen xol rafet. Uh-huh. ñu def ko ak yéene. Uh-huh. yàlla may ma ndam ca big pato. kon yàlla may ma ko Gàmbi ca champion bu mu mag ba ba Gàmbi kon yàlla alhamdulilahi rabbil alamin Abdou Dramé nag États-Unis Amérique xam nga Gàmbi ñu bare doon nag fee moo tax ñoom balakaat ñooñu ñu ñoo ne Angleterre mais Abdou Dramé moo ne États-Unis maa ngi koy gërëm bu baax Abdou Dramé kii nag mbër boobu bari wax da koo waroon këccëb war këpp la këccëb man kës yëpp daa waroon Abdou Dramé. ay waay da koo jàppale di ko jàppale États-Unis kës da koo wor. Hmm. man nag vraiment woo na ma ne ma wulli léegi yaay sama mber man nag Abdou du ma la wor. waaw liiru jaan nag vraiment Babacar. Hmm. dafa war a góor ak ñëw bëreeg ak Sëñ man nag pare naa même bu dul jaan pare naa pour kat gi pay naa pour bëre mbër bu ne Gambie hmm. pare naa pour bëre. njool jeng maa ngi di gërëm yéen waa Gàmbi gépp waaye xos xarit gerte sow yéen a baax yéen a gore kontaan naa ci yéen bu baax. nga ne Franc kon nag gars yi yéen ñuy suivre Franc ngi nii di woote depuis États-Unis d'Amérique Franc loo wax. waaw. mais Fara yaa ngi nuyoo mais dafa waaw. dañuy mais dama ne ki nga xam ne mooy Bébé Saloum dafa daan garga la wax te yow la ci bëgg a teg tëcc la bu paree ñoq li ci Modou loolu yëg nga ko. waaw

ah léegi loolu nañ ko bàyyi gars yi doole. loolu daal nañ ko bàyyi gars yi ko quoi. Hmm. kon am na solo Franc kontaan nañ ci yow. waaw moom moom sax nag moom sax woyu ma moom sax nag mu lay waaj a fekk si États-Unis de. Ah? mu ngi lay waaj a fekk si États-Unis yaakaar naa de. waaw te si moom moom lépp jàmm quoi entraînement daa bëgg ngeen def avant première bi foofu xam naa ngeen nattantey doole foofu ba pare doo nga ñëw fii ci ci arène bi. Hmm. am na solo kontaan naa ci yow. di na yàlla nangu ñaan. Sénégal yàlla na waaw sa jigéen tam a ngi toog Ndeye Kumba Fall sa xarit Ndeye Kumba. waaw Ndeye Comba nuyu ma ko baax a baax aussi. waaw mu ngi nii toog. moom sama jigéen la quoi. <laughs> waaw waaw waaw. jaajëf. kon nag gars yi <clears throat> yéen ñuy suivre affaire bi noonu la demee woon dégg ngeen li Sawru Fall wax dégg ngeen li Mor wax Franc itam depuis États-Unis dugg na wax na bébé Saloum li mu ko wax olof nag nee na benn lay pàq la bébé dina wax jamaïcain itam moom moo tëgg laam ji dégg ngeen li mu wax wulli dégg ngeen li mu wax wulli kon xama lu ñuy def jox sénégalais yi dig daje. ci kàttanu yàlla ci fan yu néew mais di kontaan tamit vraiment comme ni ma ko waxoon ci ubbi bi rek ci toog fii parce que Babacar moom moog Lutte TV defe naa ne lu du du du tey démb la xam nga kon di ñaan yàlla rek Lutte TV wasaare Leewtoo ak. ñëpp képp kuy liggéey rek la ngay liggéey yàlla na ci yàlla teg loxo ba mu yokk ba nga yëg ci sa bopp barke yonent bi sallallahu alayhi sama jigéen nday Kumba Fall borom xalima gi di ko nuyu bu baax a baax yàgg mar mi nga xam ne nii moom kenn du moom taalibi Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou yàgg bëggee naa la bu baax a baax a baax